tur bi nan la. Boy Lo bu Caaroy. Boy Lo bu Caaroy. waaw. tey moo sa ñaata ko sorti. tey sama deuxième sorti. deuxième sorti. waaw deuxième sorti nan nga defoon deuxième sorti. premier bi nag damaa ñàkk damaa ñàkkoon. damaa ñàkkoon. te yàlla def ba nga dem final. waaw waaw sant yàlla rek final bi loo ci wax. waaw yëpp bëri incha allah man laa gëm te moo fi indi. li bi doon xam nga ko. li bi doon xam naa ko waaw. xam nga mos ngeen bëre. mosul bëre mais bokk nañu làmb tey ma mosul bëri waaw. kon danañ lay demee dama koy daan. incha allah incha allah ma koy daan si kàttanu yàlla. bari na doole de. caaga fay ko doole mën na bëri. a da ngay xale nan xale yu ndaw nan. waaw di entraîné na ne ci keppaaru ay mbër. waaw mbër yu bëri ñu am lu tax biir caaro yi nekk ragalum dara. looy wax looy wax sa supporter. waaw nu may xaar fépp ma amul combat aare maa ngi da ngay bëri aare. waaw waaw maa ngi bëri aare kay. ma combat nga am caaro. man maa ngi neuf combat. neuf combat ñaata benn machine. benn machine. yow ban ndigal laa nekk ci pët àll. Ah, waaw. ci ñoom qualifié uh-huh. waaw. Ah, ndaam rek incha allah